21 h 33 minutes joté la alerté woon ci benn feu ci ci marché domaine bon 21 h 42 minutes la première équipe yi ñëw sur les lieux donc bu ñexé constaté nañ ko ni euh, ay cantines ñoo doon lak légui cantines nap bon juroom benn ñoo ci jot lak ba jeex donc constaté nañ aussi un dégât matériel bu important donc japp nañ matériel bi ci yàq bi ci jot a lakk na lool. wa 21 h 33 minutes ci lañu ci lañu alerté pour feu bi donc à 21h42 comme ni mako waxé le premier secours yi les bi constaté donc nous avons wax au bout de 30 minutes ci lañ maîtriser feu wa origine bi bon euh, charbon la euh, donc ma suis profité di lancer un appel à la population que nous euh, bi bi temps fay ko. nous ñukoy ci parce que nous constaté dernièrement feu yi ñuy am Touba yëpp loolu moo ko waral tey bi ñu déparé bay ñëw fii ci la ñu woowaat ci beneen feu ci marché bu ancien garage bi pour euh, feu boo xam ne aussi ci stocku carbone stocku charbon bi la jógee. li ñu mën a wax mooy dégâts matériels bu bëri na jàpp nañ tamit six cantines yàqu nañ si mais mënaguñ ko estimer en en argent. juróom benn cantine lañ mujj la ñoo mujj lakk léegi si juróom benn cantine yi cantine bu ne am na lu mu defoon am na ñoo xam ne këriñ lañ defoon yii ceeb lañ defoon yeneen ñi soble. mais au total daal juróom-benn cantine ñoo fi def.